jërë ngeen jëf mbokk yéen taxna Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafet lu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé lépp lu xew ci réew mi ak réew seen acte du jour dañ koy doore ak set setal national deuxième édition bi ñu fas yéene ko amal ah, mu mel ni nag ni ki deuxième édition bi nag ka nga xamante ne ah, moom moo di njiital gouvernement bi di Ousmane Sonko bi yoon a ah, ca diwaanu Saint-Louis lay daal di rek teeri mu daal di doon occasion rek ci maire bu Saint-Louis di Mansour Faye daal di sax tegub chapelet de doléance boo xamante ne rek fas yéene na ko jébbal kii di Ousmane Sonko bokk na rek ci ñu gën a taaralaat dëkk bi waaye tamit. yenn ci ay travaux d'assainissement ñu daal di koy rek door mu daal di doon loo xamante ne rek daanaka dafay daal di gën a taaral seenub dëkk boobu di Saint-Louis mu doon loo xamante ne rek daanaka moom ancien ministre bii di Mansour Faye mu nga cay xaar rek premier ministre Ousmane Sonko mu fas yéene rek amal ni ki ñaareelu édition set setal national mu doon loo xamante ne rek daanaka kii di président Bassirou Diomaye Faye moom moo ko daal di initier rek daanaka weer wu daal di jot rek daañu ko amal fépp ci Sénégal. la ngir rek gën a taaral rawatina nag nawet ga nga xamante ni sax daanaka ñu nga cee waaj dugg bu ñu jógee ci loolu ñu daal di wax ci leneen baccalauréat 2024 mu mel ni nag yenn ci ay centre d'examen daanaka nag incident rek lañ fa daal di nemmeeku ni ki nag ndorteelu lii di bac ba foofa ca diwaanu Kaolack gis nañu lu toll ci juróom-benn fukk ak ñeent ci ay ndongo yoo xamante ni rek président jury ba daf leen daal di rek dàq ndax téléphone portable yi nga xamante ne fekk nañ ko ci seen ay sàkk mu mel ni nag ca lycée bu Médina Yoro Fula daal na rek doon lycée boo xamante nag mu nga nekk ca département bu Kolda mu mel ni nag juróom ci ay ndongo rek daanaka dañ leen daal di teg loxo rek lañ leen daal di jàppee nag bokk na ca wàllub tricherie ci la nga xamante ni sax moom moo di yenn ci ay l'épreuve bokk na rek ci candidat boo xamante ne rek daanaka bett nañ ko téléphone am ca salle d'examen ba waaye sax daanaka dañoo daal di a fekk ca ñoom ay document histoire géographie mu daal di doon loo xamante nag daanaka a garaaw la ñu rek bett leen teg leen loxo rek daal di sax nangu la nga xamante ne moom moo di seen ay copie rek gannaaw si loolu nag mu a rek nemmeeku la nga xamante ni sax daanaka moo di incident ya daal di am rek ci baccalauréat 2024 bi nga xamante ne nag daanaka am ko rek mooy tax nga daal di rek dugg ca daara ju kawe mu daal doon lijaasa bu njëkk bu ñu jógee ci njàng meek njàngale mi diwaanu Saraya la ñu jëm juróom ci ay defkatu ñaawteef ñoom ñoo daal di a attiré ci ab woto daal di sax jam chauffeur ba rek ci dënn mu daal di doon mbir mu doy waar waaye nag ñoom yamuñu ci li ni mel dañoo daal di rek attaqué bi le oto dugg rek fekk fa juróom benn ci ay passager rek daal di jël seeni ay téléphone ak xaalis ba nga xamante ne yoroon nañ ko rek mu daal di doon mbir mu doy waar nag noonu nag ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo brigade bu ko santu gannaaw a ñu daal leen alerte rek ci li ni mel la ñu daal di rek teew ca bërëb ba waaye nag fekk ñu fa kenn teewul ñu daal di rek lancer poursuite ngir rek daal di xam ana la def katu ñaawteef yooyu rek daal di dugg gannaaw ñu daal di tirer chauffeur ba rek ba noppi a di sàcc koppar ak téléphone yi nga xamante ne ña nekkoon ca woto ba a di nañ koy yore ñu daal di addu ca leneen Bijou Ngoné moom la gis doon rek l'animatrice de la 2 Ngoné nag daal di partagé une vidéo waaye tamit de très photo rek ci la nga xamante ni sax daanaka adopté na ko rek muy style bu daal di rafet lool ñii di internautes yi nag daal di apprécier bu baax baax rek la nga xamante ne moom Bijou Ngoné a di na koy adopté ñu daal di wax ca leneen gannaaw ba nga xamante ni nag ma mu nga nekkoon ca diwaanu États-Unis moom Astar mu daal di doon une jeune artiste bu ñu ràññee bu baax a baax moom kumba ca confession mu daal di nag euh, retracé rek la nga xamante ne euh, moom moo di ay début carrière am waaye tamit euh, lenn la nga xamante sax daanaka jot na koo dund rek ci showbiz bi waaye nag la ko ca gën a métti rek bokk na ca way juróom bu jigéen ba nga xamante ne rek daanaka ñàkk na ko à chaque fois rek muy daal di rappelé wu rek li ni mel mu doon ay souvenir yu métti yoo xamante ne rek moom daf koy daal di amee rek moom jeune artiste bi di Astar international sénégalais bi di El Hadj Ousseynou Diouf mu mel ni daal dinañ koy nommé rek ambassadeur loolu nag kenn defu ko kudul madame Juliette mu daal di doon ambassadrice bu Royaume-Uni fii ci Sénégal mu mel ni nag gannaaw promotion ak encadrement ba nga xamante ni rek daanaka mu nga koy def ci wàllub football féminin mu mel ni moom El Hadj kii di ambassadrice ba nag daal na ko rek tab ambassadeur mu daal di doon mbégte ci international bi di El Hadj Ousseynou Diouf waral nag mu daal di wane satisfaction ba nga xamante ne daal na koy am rek ca la nga xamante ni sax tabb nañ ko ko fay naara moom la ñu gis noon rek ak belle image mu partagé depuis Dubaï moom tiktokeuse bi nag mu daal di doon ku ñu ràññee bu baax waaye tamit bëri loolu ay followers gis nañu récemment image nga xamante ne daal dina koy partage depuis Dubaï ñu daal di wax ci Adama Bey moom mooy ka nga xamante ni sax daanaka moom moo war a takk rek kii di Zeyna Ndour doon a doom ci Viviane Chidid mu mel ni moom Adama Bey nag. ñu ci bëri sax daanaka daal dinañ koy xam rek mu doon doom ci Amadou Mokhtar Beye bile tour nag daanaka yàgg nañ koo dégg doonoon sax ancien réalisateur foofa ca RTS moom Adama Beye nag mu nekkoon nga xamante ne moom moo di Thione Ballago Seck daal di sax ànd ak moom ni ki atum 2008 2009 ak 2010 laata nag muy engagé wu rek ak kii di Wally Ballago Seck ci rek ay début carrière am ak na mu ca daal jàppee rek ba sax na nga xamante ne moom ma dal na rek yorub l' entreprise bu boppam mu dal di doon ku ñu ràññee bu baax a baax rek moom ma Adama Bey nekk doom ci Amadou Mokhtar Bey ancien réalisateur ca RTS ak kii di Seydina Alioune Seck daal di nay rek collaboré ak frère am di Mouhamed Seck ñu dal di rek tegub agence événement événementielle bokk na rek ci duppeeku Momo et AS7 mu dal di doon sax loo xamante ne daanaka seenub l' activité bu njëkk rek dinañ ko lancé daal di fay rek andi seenu frère di Wally Balago Seck a ki 28 septembre 2024 mu doon concert boo xamante ne rek daanaka ñoom seen bile agence moom mooy njëkk sax ci rek la nga xamante ne daal nañ koy teg rek moom Seydina Alioune Seck nag gannaaw bal goow ba nga xamante ne teg na ko rek mu daal di doon centre de formation boo xamante ne rek mu ngi fay tàggat ay ndaw ci wàllub football daal na rek teg agence événementielle ànd ci ak ci fanweer ci ay migrants rek daal nañuy des ca ndox ma lool nag gannaaw bañ ko wàññee rek fukk ak ñeent ñu nga daal di jóge rek ca diwaanu Mbour naka noonu ca diwaanu yéen tamit am na ab gaal goo xamante ne rek daanaka defoon na rek lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay nit rek yoo xamante ne daanaka ba ñu wàññee rek gis nañ ci ñaar fukk ci ay ndaw yoo xamante ne rek daan nañ leen intercepté rek foofa ca yéen. jeexalee wàllub tàggat yaram wax ca tirage au sort CAN ba nga xamante ne rek ni ki tey ca Johannesburg mu mel ni nag gayndey Sénégal xam nañu ña nga xamante ne ñoom la ñuy bokkal bile groupe bokk na ca Burkina Faso Malawi ak Burundi mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen andi loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talaal notification bañ a dara suñu information yi jërë ngeen jëf